jërëjëf eh, ayca mi noonu ñu ngi ci càmm si toogaay bu ah. euh, noonu ñu war a waxtaanee préparation euh, tabaski 2023 mbay laay wax ci dikk euh, amal ci ay points yu am solo mais y a le plus jeune entrepreneur de la entrepreneur de la ville de Rufisque macha allah xale bu bi xew l'homme l'homme du terrain ki nga xamante ni rek ak mën a daw paate mi paate <laughs> paate maa yaa ngi baax fi mu <laughs> euh, maa ngi lay nuyu. ñoo ko doon dundandoo de. la jaar <laughs> ma ko waxee. <laughs> ay ma ko waxee. fa la woon ma ma baal ma. Ah. fa la laaxatu woon. kii. la doon def. damaa daw benn damaa daw ba ba dagg bas génn summee na ñu naan ma nu mu demee nii. du fi mbañ man dem naa ba wakam di yuuxu. wallaay moom Anta du ne ñu ñu dem wakam jëli fa suñu naataango ay chanté ay chanté maa ngi nii ma ne ko wuy ma man maa ngi dee. daa métti lacrymogène yi nañ ci yàlla musal. maa ngi lay siyaare di la kontaane mhm. Alaaji Mbaye Babacar Sène le griot de la toute nouvelle génération. ah tu as tout mon respect. Euh, Aïcha Diakhaté oui ah, toujours aussi pertinente et constante. Mhm. maa ngi lay bari. yàlla ziar ah, respect. ndeysaan Mbaye Thiam gi maa ngi leen di siyaare mhm. di nuyu téléspectateurs yu Walfadjri di leen di am mbégte. Mhm. donc dikkaat ci plateau bi. et euh, dire que. Euh, euh, euh, xam nga dëkk bi dafa naxaree waxee. Sénégal rawatina. waaw mhm. dafa naxaree waxee. xam nga mais mais démb alhamdulilah on a yëg nañ satisfaction wala sensation yu. yu profonde quoi yoo xam ne xaw nañ ko gëj yëg quoi. bi ñu mhm. bi ñu gisee nga publier donc la visio mhm. de Pape Ndiaye. xam nga bi muy bi muy génn ci foofu ci. Rebeuss Sébikotane xam nga si Sébikotane autant pour man donc di ko ñaanal suñu borom mu defal ko jàmm ak tawféex. et donc qu'il se repose. et euh, qu'ils reviennent en force. surtout équipe jeudi nam nañ ko waaw mais parce que on a non dañoo nam Pape Ndiaye. équipe jeudi oh, ah, avec mais mais gars yi nañ ko yëg bi ñu ko bàyyee satisfaction. wala lan lan la man euh, je te je te je te raconte ah Salma et c'est extraordinaire. oui. 18 heures lañ toog parce que ñun ñu ngi doon waxtaanee libération bi depuis 14 mm-hmm. heures avec Moustapha oui. quand je faisais le live avec lui mm-hmm. ma ko ci laaj ma ko dama dégg écho bi mu may jox ay leeral comme quoi am na ñu ci dégg mm-hmm. mais nañu ñaan yàlla mu dégg mu génn mais mu ngi ci yoon bi ñu toog may réaliser le journal de 17 heures Khady Sylla ñuy woote ak avocat bi ma ne Issa faa nga xool pour ñu xam journal 17 heures leeruñu ñu ne duñ ko bind Pape Maguette journal pare dem man ma war a def ma toog du journal ba tey may woote rek Issa Issa bi ma demee bay def nag euh, rappel pour tëj journal bi. Mhm. ca la Issa ñëw buruux ma téléphone bi. ne ma naa ko brève mhm. mais comme je faisais la brève j'ai tellement dama dama doon yuuxoo fet dama yuuxoo dama ne dama ne et eh, enfin Pape Ndiaye libre. li ah, ma ko waxee sax en fait dama génnoon sama kooru journaliste. Mhm. je faisais plus le journal mais dama doon annoncer une nouvelle boo xam ne je l'attendais. sëriñ bi nga xam ne ma doon def intéressant bi dana ma dafa yuuxu waaw waaw dafa yuuxu ci antenne bi te ñi doon déglu keroog xam ne ne ko on très content ñëpp di parce que dañ doon xaar quoi dañ dañ doon dañ doon xaar mu génn ñun demoon na ba ba ba ñun demoon na ba tëju Pape Ndiaye bien vrai que injuste la woon mais après dañ doon demandé clémence ngir yàlla indi leen ko di ko ñaan ci njëkk parce que xam ne ne war dëgg lu metti woon la sensation boobu laa yëgoon et c'était voilà l'occasion mais pression la amal parce que ki à vrai nekkul xeexu pour ñu génnee Pape Ndiaye comme ni ko maam Biram wañ waxee démb du nguuru du nguuru du nguuru cof du nguuru cof parce que dañuy génne ay remplaçant la ñuy def quoi ah, après ah. tu n'auras euh, pas ton mot à euh, nga wax ñu xëy na sujet bi ngay waxtaanee Salma nga wax ni du jàmm quoi c'est vrai <laughs> dañuy génne di dugal quoi yàlla ci yàlla lido la lido alors donc tey dañu dañu dañu euh, am euh, alors benn invité boo xamee ne que alors certainement internautes yi dinañ xàmmee visage am il répond sous le nom de Bachir. Mm-hmm. Bachir c'est jeune étudiant boo xamee ne dafa dafa dafa dafa nekk def li ñu wax comédie. alors pourquoi ñu def ñu am yéene def focus ci moom parce que dañu dañu am un peu parcours donc bi mu jógee seen dëkk ci àll ba donc ñëw fi nga xamee mooy université Cheikh Anta Diop ak liberté bi mu am il est en train d'évoluer de se frayer en tout cas un chemin alors euh, ba euh, muy dimbali yeneen ci ay moroomu étudiant wala boog yeneen ci ay moroom ñi nga xamee dañuy jóge si mm-hmm. dëkkam mm-hmm. xam nga ba ñu am insertion en tout cas au niveau de Dakar mais aussi alors euh, ñuy muy góorgóorlu en tout cas bay am ay partenariat ay contrat ak yenn ci ay mm-hmm. alors industrie wala boog usines yu yoo xam ne yu mag lañ deux trois ans. Mm-hmm. il a réussi à ce à ce à mu mu wane boppam. donc mm-hmm. au devant de la scène. e dafay baax à notre niveau ñuy am pour di wan gaz nekk donc mm-hmm. ça c'est c'est des exemples. yu ñu war a bàyyi xel donc euh, dëkk dëkk bi jafe na. y a énormément de blocage yoo xam ne mu am ci ci dundu doomu aadama bi mm. mais kenn ku ci nekk mu jëm di créer contenu boppam quoi et puis jéem a focus ci jafe xam naa ci kanam incha allah donc di parcours bu ñu war a bàyyi xel ci kanam tuuti bu dikkee rek ñu daal di koy waxtaanee mbay ñu bàyyi la nga dugg ci tabaski bi fukk yi toll ah, fukk yi toll comme ni ko Salma Ibrahima Fall waxee euh, aussi tamit euh, comme ni ngeen ko waxee rek di am mbégte kontaan euh, bu baax a baax ci Pam Ndiaye mm. di ko wax ni dellu ci gi mu génn duñ dem ci njabootam Euh, yàlla na doon njiglaayam daal te aussi tamit ña fa des. Mm. Euh, tamit ñu gaaw jublu ci seen mbir daal. Mm-hmm. waaw ku ci mel ni ñoom Fadilou Keita ak ñoom Jean ama ay euh, Salma. Mm. injustice baaxul. na parce que tey li ma yàgg naa ko di kaw faral di wax fii. Mm-hmm. yat wi na tegu ci ni mu war a dal na leen dal. Mm. ku mu am ndey ak ku mu amul ndey baaxul. Mm-hmm. far nga ak man loo def duñ ko gis ñu fat la. faroog man loo wax ma gisee ni. nag maa bañ wala nag maa contre du loolu baaxul ci réew. bu doon groupe whatsapp ba tey man quitté naa. bu yàgg Hannibal Djim Nit Dof Karim Gueye Cheikh Oumar Diagne ñu leen di seet bu baax. ni ma jaaxal da dul groupe whatsapp rek waaye kon quitté naa bu yàgg xaw ma fu may jaar ak sama coojee fu ma leen di jëmee. fexeel ba Lido bi bu ci bokk rek kon ah ma kay. lan nga nekk Walfadjri nan omee rek saa boo yeewoo rek war nga mën a xalaat yaa ngi ciy jóg fii moom fii moom tant que yaa ngi ciy naan la voix des sans voix waaw jàppale saa boo xëyee yaa ngi ci Lido bi. waaye waaye waaye waaye ñun Eh, ci ngeen bokk de yow ci savoir savoir. am na am na am na kaso bu gën a metti kaso bu gën a metti te yàlla moo la fa doon fekk mooy neuf mois yi nga def sa biiru yaay. Mm-hmm. yàlla moo la fa doon fekk fu mu ne yàllaa fa ne waaw ci xaru tabaski yi euh, tey jii ñu jublu ca euh, Salma. Mm-hmm. cas bi nag dina metti trop ba tey du ñu waaj même même lancé lay doon ah waaw parce que boo waxee tey ñu ne euh, dañ ñoo da dalaa contre wala tey dañ ñoo bañ wala ainsi da fekk ni mm. ay fee la ay réalité yoo xamante ni mm. moo am ci dëkk bi man nee naa ci lu jëm ci tabaski dootuma ci wax lu bëri mm-hmm. ndax lépp loo ñu fi wax rek répétition la mm-hmm. ay ati ati ati ati at ñu ngi wax ci lu mel ni toujours loolu lay ñëwaat léegi nag ay comme ay chiffre lañu jox ñun chiffre duñ ci wax sànq ma ngay mu ngi koy wax mm-hmm. da xayma def seen sélection def seen chiffre nekk bàcc population yi daf mhm. ci naxi kase euh, am na élément yu ñu jëloon ci terrain bi askan wi léegi ñoo war di waxal seen bopp euh, bu taan penda pare ñu dem seetaan te ñëw salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay ziar di la laaj tur beeg sant bi waaw sëñ bi ñu ngi lay delloo ziar man la xulaam kan mhm. man la xulaam kan dëkk Soumbédioune di nekk jaaykatu xar mhm. euh, macha allah dañu gis ni tabaski ren ji ni ngeen a yéex a génn lan moo waral lool jeex a génn gi moom situation dëkk bi moo ko waraloon rek quoi hmm. situation dëkk bi problème bi amoon si dëkk bi moo ko waraloon mais léegi moom alhamdulilah hmm. euh, est-ce que clients yi ñu ngi ñëw par rapport ak at yi passé non suñu liggéey moom dafa yàqu laay wax hmm. waaw liggéey éleveur yëpp yàqu na waaw ndax ñun ñu doon liggéey avant ak bii nii du benn quoi du benn euh, tey jii est-ce que njaay mi mu ngi dox na mu daan doxee comme liggéey bi yàqu na wala tey dafa yéex a dox non bi doxagul ñi ngi xaar clients yi quoi nu mu doon doxee ak ñun nekkul benn. est-ce que seen xar yi moo seer tamit. non non xar yi seerul comme d'habitude rek di xar moom xar moom lu muy jar rek la daan jar xar yi seerul. Mm-hmm. xëy na kii yaa ngi génnagul mm-hmm. Mm-hmm. mais est tey pour ngeen génn ci dina yomb naxa dund xar wi nu mu seeree lép yokku ak tey xar yi fanaan bi ngeen fanaan fii eh, fere yi ngeen ciy def yëpp est-ce que tey jii génn ci dina yomb comme jaaykatu xar nga. ah affaire nag moom gars yàllaa xam moom waaj mhm. ñun daal dinañ baggal loo xam ne moo ñu war dinañ ko def si xar yi dinañ ko def baax toog xar clients yi nag ñu ñëw mhm. euh, ci ay xaru ñaata nga am na fii li ma fi gis dafa mel ne ay laadum kase moo fi ne wala am na catégorie bu lekk Mhm. am na laadun am na bale bale am na xar yu ndaw tamit yëpp waaw mhm. eh, ci prix piri bi gën a suufee ku ñëw fii di ko am am nga ay xaru cent cinquante mille non xaru deux cent mille am na deux cent cinquante mille am na mhm. waaw ay xaru yar la quoi euh, kon nan nga koy jàngatee ak ministre bi ne euh, xaru soixante mille ak soixante dix mille euh, tey jii mu boo ko amee mën ngaa am xar waaw gand comme ñoo wax loolu gan dañuy xaar xar yooyu ñëw xar yooyu bu ñëwee dina arrangé sénégalais yi uh-huh. dañuy ñaan yàlla xar yooyu ñëw man uh-huh. ba gan ndax borom soixante six mille ak borom soixante quinze mille ñëpp mën tabaski uh-huh. waaw loolu dañuy ñaan yàlla xar yooyu ñëw mais ba tey kenn gisagu leen de ah gisaguñ leen de gisagu leen de ah man de gisaguma leen ah. lan ngay wax sénégalais yi lay seetaan te jëndaguñu xar sénégalais yi may seetaan te jëndaguñu xar war nañu génne dem jëndi xar moo gën a wóor waa waa nañ génn dem wuti xar moo gën a wóor mhm. waaw ndax moom dernière minute wóorul mhm. parce que loo xam ne gisagoo ko wóorul de loolu moom jarul dóor sa kaw mhm. aa ñu ngi lay jaajëfal waaw jërëjëf di la nuyu di la laaj tur sant bi waaw ñu ñu ngi bu baax maa ngi tudd Papa Ngom dëkk Thiaray euh, tey na nga ñëwoon ci daral bi wut si xar wala na nga ñëwoon visite waaw non damaa ñëwoon moom pour bëgg a xar moom pour nga bëggoon deux cent mille laa mënuma kaa mais lan moo tax mënoo am xaru cent mille ah xar yee cher wala xar yi nga na nga viser lu sa poos antalul waaw loolu la nag euh, hmm. xar ñoom danoo seer moom hmm. ndax démb euh, bër ci fan yi damaa dégg ñu ne ministre bi nee na ku am soixante dix mille wala soixante mille di nga am xar uh-huh. man ma gàddu sama cent mille mais man manuma am xar uh-huh. ah ma jaaxal de kon lan ngay wax suñu autorité yi toujours bu ñu génnee di wax nit ñi xaru soixante mille wala soixante dix mille te boo demee ci terrain bi doo gis loolu ñu bàyyi naxaate bi rek dan bàyyi naxaate bi te wax nit ñi dëgg te indi xari nit ñi jënd xari mhm. loolu daal moo ëpp solo ndax eh. am na ay néew du doole yonte ne mënunoo jëndaal sama genre gi duñ jëndi xar bi mhm. waaw une semaine des ci tabaski ji gisoo xari coggal gi nan daan ñëwee ñëwewuñu ko nga gis ni dara li nam daan feesee feesuñu ko en tant que citoyen yow en tant que doomu réew mi est ce que amoo ci jaaxle yi ñu bëri tiit nañ sama genre gu bëri tiit nañ ndax heure bi daana fekk daral goo dem mu fees mais fi mu toll ne ay ñoo fem te fii ma ñëw nii xaram deux cent mille sax amul mm-hmm. waaw nga bëgg am xaram cent mille mënul ne mm-hmm. waaw day métti moom mm-hmm. waaw euh, kon lan ngay wax sa mbokku sénégalais yi nga xam ne ñu ngi jënd ah ñu jéem a xool bu fekkee noo am ñu jéem a cotiser kër gu ne ñu dajale leen am tabaski ba beneen yoon loolu daal laay xalaat boobu solution rek nga xalaat boobu solution laa xalaat sinon dun dun rey waaw borom kër gi nan dajale leen am jë jox ko mu jëndam xar mu jëndam xar léegi tey ji mu yéene ci ñëpp a Mm-hmm. comme ñun yàlla rek moo ñu ci jublu. Mm-hmm. waaw. kër gu ne waaw. ñëpp dajale jënd cotis ca cotisation euh, ba la jaajëfal bu baax a baax ñoom ñi ma mënoon a nangul reportage bi ah xulaam eh, nekk éleveur di jaayee fee ci euh, Soumbédioune bi ak ki nga xamante ni mooy Pape Ngom euh, doon wuti xar dëkk fële ci thiaroye sur ama tey Salma mhm. ama man des fois damay damay damay dama naan est-ce que tey Sénégal ñun xawma xawma xaw ñun fan fan lañ ñuy dugal wala ñun fan la ñuy nekk ba ñuy wax yenn yi ñu ciy basé wu. Mhm. aussi tamit euh, lan moo tax duñ ñu wax réalité yi nga xamante ni moo nekk euh, ci terrain bi euh, man wër naa daral yi nekk fii yëpp. Mhm. àll bi information yi am ci àll bi dañ koo am ay information yu palpable mhm. yoo xamante ni amul sax jiixi jaaxa bëri na ñoo xamante ni ñu jëloon seen xaalis dem gàttanu ji ñi nga xamante ni dugg nañ ci réew mi pour jënd ay xar mais dañoo delloo siwaat seen xaalis ndax ma lan moo tax mhm. xar ya la muy jar suñu ko jëndee ñëw pour jaayaat dañuy diig mhm. duñ ci génn nag xar moo yombul situation yi ni mu nekk tey une semaine moo des ci tabaski bu ñu mhm. naxantee waxoon naa ko fi jeudi bi passé mhm. ma ne liy xeeñ neexul mhm. ku mën a teel a jëndi demal jëndi selon ci li nga am mhm. sa poos fi mu toll nga dem jënd lool man fi nekk ni amul benn autorité bu may ŋaañ ñu pare na parce que ci moment bii dépassé nan foofu solution la ñuy wut ban solution askan wi laay wutal solution mooy lan ku fi toog naan laa xaru so ñu seetaan naa ko PM bi Amadou Ba wax na ko euh, dem ñu ngi koy jaajëfal nag ah, ci waaj man yaakaaroon naa sax du wàcc ci terrain bi ah, ndax ma nga PM boo xamante ni mhm. euh, jox nañ la élevage bi nga boole kook sport bi day xaw a yéeme nag mhm. mais comme def na effort ba wàcc ci terrain bi ñu ngi koy jaajëf mais ca daral ba ca watu Thiès ca péage ba mhm. ba tey xam naa ni duggul xuusul ci àll bi bu baax waaye dem na gis nañ ko mu ne euh, tey Euh, soixante mille ba soixante dix mille. Euh, ci ay prix amoo tey li may faral di wax chaque jour euh, chiffre man bëgguma sax ñu koy wax ci xar. saa su nekk Aliseel Diop waxoon na fi quatre vingt mille dem ba Daara Jolof jël benn xaram ñu publier sànni ko ci digital bi ne quatre vingt mille nañuy bàyyi di ñu jox ay chiffres yoo xamante ni exact yow benn secteur boo xamante ni un an xamoon li ci xew. Mm. ba mu des une semaine wala deux semaine nga ñëw rek nga ne carrément xaw ma man système de communication la xaw ma tey seen cellule de communication ñoo leen koy sant man xaw ma lan la. xaw ma est-ce dañoo nawloowul ñi ñuy waxal. parce que di wax ak nit di ko wax loo xamante ne da koy leer ni ngay wax nii moom mënta ne. Salma du ñàkk nawloo askan bi. gis nga xaram xaram quatre-vingt mille amatul. maa ngi koy fii ci télé. mais moom 60 la wax. waaw léegi moo tax ma ne la man xaru xaru quatre-vingt mille amatul. xar bi gën a tuuti bi nga daan jëndee soixante mille bu njëkk ay quatre ans passé wala cinq ans léegi boo deful cent dix mille cent quinze mille cent maanaam baar bi dafa am xar prix boo xamante ni moo nga ko mën a jëfandikoo Tabaski fan la yem ak fan la départ cent jëm kaw cent dix mille cent quinze mille cent vingt mille cent vingt cinq mille. mën nga am ci coggal gi. mais kii kii nga jël nii moom nee nañu. xaru yar mu ne amul xaru cent cinquante mille cent cinquante deux cent cinquante la am. deux cent deux cent cinquante mille parce que dafa am xaru yar am xaru coggal. xaru boo xamante ne borom jëndee woon na ko y'a trois mois passé wala quatre mois jëndee woon ko cent mille ñëw di ko defar quatre mois cinq mois mais mënoo fexe ba mu jaayee la ko. tey jii moins de cent moins de cent cinquante mille mhm. na jëndee na ko cent mille wala mu jëndee ko cent dix mille wala cent quinze mille te ba mu koy jënd coggal la woon mhm. mais ñëw na am ci lu mat cinquante tête wala soixante tête defar leen pendant trois mois di leen yafal di leen yafal xar boobu léegi borom lan la bëgg mu mu jaayee la ko du xoolee coono bi mu ci daj. Mhm. ak li mu ci investi minimum sax sax day suur day suur. day suur day rafet léegi nag xari coggal yooyu koo xamante ni <laughs> euh, xaru kii ba mu koy jënd. Euh, tey jii euh, jëndoon na quatre-vingt-dix mille wala jëndoon na ko cent mille. Mhm. nañuy def euh, tey ay exact dem ak sunu xeer rek. Mhm. léegi kii ñi nga xam ne dañuy andi seen i xar. jugee gis nañ ministre Ali Ali Samba Ndiobène Ka moom mhm. tamit mu ngi jàpp ci combat bi bu baax a baax man dama naan mënoon nañ kaa jox élevage bi rek. comme yoroon na ko. fi nekk nii mooy mu ngi jàppale Amadou Ba ci liggéey bi bu baax a baax. man léegi lan mooy problème bi kon. problème bi maanaam xar moo yombul. non dama ne le fait que ñu jël ministère boobu jox ko Amadou Ba. ba pare que li mel ni mooy piloté. waaw ma mënoon kaa jox élevage bi. yoonul yomb mënoon noonu ko ko jox moo gën a yomb. Mm. na parce que fi na nii daanaka mel na ni moo ko yor Paa di ñëwal. salaamaaleykum. <laughs> c'est que c'est que c'est que coow li coow li yëpp mooy. la dimension politique bi nga xamee moom moo làqu ci seen ci seen ci seen diggante quoi c'est-à-dire tey quand euh, Idrissa Seck di quitté alors euh, euh, liggéey en tout cas collaboration ak Macky Sall mm-hmm. alors c'était évident que ñu ñëpp xamoon nañ ne maam ministre yi nga xamee bokkoon nañ ci gouvernement yëpp ñoom ñoom dañ doon daal di kii mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. et ku ne xam na sa relation bi nga xamee mooy kii kii nekkoon le ministre de de de de de l'élevage ak Idrissa Seck donc mhm. moom ci poulain Idrissa Seck la bokk mhm. Mhm. alors buy génn dafay bàyyi li ñu ko doon liggéeyloo mais malheureusement ou heureusement sinon en tout cas malheureusement pour les Sénégalais ben ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy ñi ñuy lésé ñi ñuy biaisé en tout cas ci ci ci relation entre alors ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi ak li war a am quoi comprendre que cest à bu fekkoon c'était en dehors la politique bu waa ji di génn ci ci ci ci ay ci collaboration ak ak Macky Sall mais war na mën a nekk mu bàyyi ñii nekk ci ay ay ministre de tutelle. Mhm. ñu bàyyi la continuer. Mhm. parce que après ñuy avant ñuy nekk ay membre lii yoon moom mooy les intérêts. les intérêts de la nation ah, ñoom ñoo war a primer. moom bu fekkente ne Aliou Sall sax euh, euh, poulain wu Idrissa Seck la. que que que que le président Macky Sall taxaw. wala sax ki nga xam ne moom moo di. wala sax ki nga xam ne boo pas Idrissa Seck sax wala xam ne ki nga xam ne moo di Amadou Ba taxaw ne ah man kat. en tant que njiital primature la Aly Saleh Diop di def ci département bi mm-hmm. mm-hmm. dëgg la question politique ngeen wax waaye man doy na ma buur mu wéyal ko dañ ko bàyyi mu wéyal moins de quatre mois avant tabaski ah, na tey euh, baate li yaa ngi wax lu am solo loolu mais li tax ma doon wax Idrissa Seck sànq Idrissa Seck bi jamono bi ko le président Sall woowee daf ne sama république moo ma soxla waaw damay ñëw waaw donc bu ministre bi defoon la même chose mm-hmm. je pense pas que moom mi nga xamante ni mooy Idrissa Seck bi nga xamante ne 2019 nit ñi dañoo boole woon seen ay vote jox ko ko mhm. finalement mu njuy leen dem ànd ak Macky Sall mhm. ministre bi bu ko defoon tamit yaakaaruma ni moom war naa mën a xoole beneen bët tout à fait nga xamante ne ama tey euh, c'est paradoxal quoi Ka euh, tey mu ngi yor li nga xamante ni mooy euh, ministère di développement communautaire de l'équité sociale xam nga moom tey loolu la yor bi mu jugee élevage foofu la dem mhm. mais man man li ma mënta ko am parti mu ngi koy wax sànq te waxoon naa ko fii yi. ne dina indi jafe-jafe bu am solo boo xam demuk Aly Sael Diop. Euh, tey bu ñu naxante bu ñu yaakaar ne sunu autorités yi askan intérêt askan wi leen fi taxatoog seen intérêt personnel moo leen fi taxatoog a toog Aly mburoog soow moo ko fi indi woon fii laa toogoon wax ko. mburoog soow moo taxoon ñu sédd ko ministère ba ponce bi ponce ba léegi ba ponce ba euh, dogee. Mm-hmm. Euh, tey jii lan la def dañoo delloo lañ leen joxoon dox naag doxul. seen yoon nekku ci. xam ka ni ma la xam nga tey euh, benn affaire dafa am. Euh, benn affaire dafa tey gis nañ euh, sàmm Ndiobène Ka dem na ba mu Mauritanie joxe ay laissez-passer yaa xayti gis nga nag laissez-passer. dem mm. rek demal andi taxul xar yomb. Mm-hmm. gis nga li may faral di wax rek nan bàyyi médecin après la mort. Mm-hmm. tabaski lu toll ni tabaski. économie bi muy def ci réew bi demande bi nu mu toll doo bàyyi ba mu des ay une semaine wala quinze jours nga bëgg cee def liggéey bu extraordinaire mais Mbaye au delà de ça aussi fitna bi fi am manifestation yi fi amoon ak yooyu est ce que loolu aussi joué wu ci avant bëri andiwul nga avant manifestation yi xam ban lii la ci andi mhm. euh, maanaam nit ñi ñi meewuñu woon a teel a génn nit ñi ñi meewuñu woon a teel a ñëw mhm. mais dafa am pour politique bu jiitu tey manifestation yi distance bi moo tabaski bi matul un mois wala ci lay yem. léegi un mois tey war nga mën a pare préparer trois mois nga pare trois mois avant tabaski trois mois avant tabaski. Mhm. depuis ba sàmm Ndiobène Ka Aly Seyel Diop daal di bàyyi ministère bi ci laa xam ni jafe-jafe dina am. Mhm. na parce que tey jii activités yi mu ci doon def coono bi mu ci doon def euh, tey jii moom Amadou Ba mi ko yor mënu ko ci. te amul jot gi aussi tamit bu ñu naxante nan waxante dëgg mais mais Mbaye bëgg naa aussi déjà ma ma ma joxe ma xal benn constat boo xam ne def naa ko quoi d'abord sax pour wàllu manifestation yi ñuy doon craindre mais nekkul lu bees ñu toog à moins de deux semaines avant tabaski wala boog dix jours di am mm-hmm. problème yi naan ndax xar dina am ak du am. Mm-hmm. lii nekk lu bees quoi donc mm-hmm. buñ ko buñ ko wékk ci ay problème wu ay manifestations yi ñuy doon wax yu demee loolu loolu loolu c'est sedd na beneen affaire aussi y a d'autres yoo xam ne dañuy wax comme quoi que maanaam alors ñii di ñii di teefanke yi peut-être li ñuy bañ moom mooy bàyyi ba sinon teel fi andi seen i xar. dépense bi dafay gën a yokk hmm. dafay gën a bare ci ñoom cest à war a jënd ngooñ war a fay hmm. alors euh, euh, euh, yi fi ñuy hmm. tax xareet yu demee noonu quoi peut-être loolu moom mooy tax ñu ñuy toog seen seen seen dëkk ba bàyyi ba am mooy de dix jours wala une semaine xamuñu doog a ñëw mais ñi ñu tuddee les éleveurs de de de dimanche dañ daan wax les cultivateurs de dimanche mais les éleveurs dimanche xam nga am na benn constat wu ma def may da loolu noonu c'est pas normal da gis benn paata mbeng yor Euh, benn gétt goo xamee ne que ça fait quelque cinq voire dix xar. Mhm. mais mu la bayaal boo xamee ne man na un hectare. fu nekk mu def fa benn xar te xar yi du nekk ay xar yoo xam ne c'est accessible à un Pathé Mbengue ou bien benn Mbaye Babacar Sène il faut nga am deux cent mille jëm kaw. xam nga am na ñoo xam ne sax sëñ bi boo yoree deux cent mille amoo fitu dugg si si si daral ba. da mhm. bàyyi ba yor cinq cent jëm kaw. et ñooñu ils occupent l'espace. Mhm. mais la majorité des sénégalais yi ñu mën a jënd ñooñu bu ñu ñëwee du ñu am espace bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu def seeni xar et loolu c'est c'est pas normal donc ñi nga xamee ne que ñoom ñoo nekk di régir en tout cas loolu ci wàllu occupation wu espace bi ñuy jaayee. Mm-hmm. de grâce nañu bàyyi xel ci loolu. Mm-hmm. parce que tamit ñii di ñëw non ñooñu ñoo yor njëgu sénégalais bi au vrai sens quoi. dëgg xam nga mm-hmm. mais doo ñëw yor dix xar. xar bu ne di jar ay cinq cent mille cinq cent mille un million un million cinq cent nga occupé alors benn benn benn quatre cent car carrés mhm. te kële di ñëw ñu bàyyi ko benn puxus boo xamee ne alors moom au moins yor na cinquante xar yu mu mën a jaay à cent mille à cent cinq euh, di paat li paate wax xamantey espace bi euh, maire moo koy joxe wala préfet mhm. amal la euh, tey boo xoolee préfet de Dakar wala gouvernance tey ñu ci bëri ñu ngi doon joxe espace yi mhm. li mu wax lu am solo la mais tey espace dañ koy teel a wut mhm. espace dañ koy teel a dem lijjanti ko mhm. war nga koo lijjanti quinze jours avant tabaski nga jot ko pour mën a dem am accès foofu mhm. euh, wala tey un mois neen wax naa ko fi ba tàyyi un mois na li ñu daan génn ci euh, mbedd mi te est-ce que xam nga ni un dara jaaykatu xar ñu ci bëri euh, tey ñu dee xar yi fii ba déwén amalu leen benn intérêt. dëgg la mm-hmm. na parce que dañuy dañ dépense la ñuy jël kon ñoom ñu jaay xar yi bazarde ko. Mm-hmm. moo gën ci ñoom des fois di nga jëndee xar cent mille. Mm-hmm. jaaye ko quatre vingt dix mille perte dix mille moo gën nga koy téye di ko dundalaat ba après di nga ci def plus de cent vingt mille léegi nag li ci nekk mooy. coggal gi dina ñëw ak du ñëw. Euh, def na ay jéego dem na joxe ay laissez-passer pour yeneen doomu réew yu ñëw pour jaaj. mais ba tey dama leen koy bàyyiwaatal rek euh, message maanaam euh, li nga xamante ni chaque jour. nanga nga koy jéggaani. Mhm. Euh, chaque jour nii lay demee. Mhm. loo xamante ni carrément na koy soxla sa doomu réew nañu am habitude di ko produire. Mhm. wala di encadrer ñi nekk ci secteur ba te encadrement bi bañ a am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ku bokk sama parti ku bokkul sama parti. Euh, secteur bi la ñu war a mën a dundal secteur bi lañu ñu war a mën a accompagner accompagner ñi ci nekk pour ëllëg. bu ñu soxlaa secteur bi tey jii ñi ci nekk muy ay éleveurs. répondre euh, les tey am force bi mais gars yi dañuy dem ak seen moyens yi bopp mhm. dem ak seen système u bopp dem ak maanaam ku ci nekk ki nga xamante ni nag moo xam na muy tojee bopp gën a xam mhm. gisu la ci douze mois yi onze mois yëpp. Mhm. douzième mois bi mais mënoo kaa gis. nga koy wax mu lay déglu tamit am solo mbay ah. fi mu ne nii waxtu wi moo ñu xoj mais yàgg nga promouvoir li nga ah. xamante ni moo di agriculture ak ah. élevage. Mm. tey jii bu fekkoon jumelé nañ leen ku am euh, euh, politique bu baax bu jëm ci loolu amaana duñu egg si. si li li yëngal réew mi de Mame Mbaye Niang ak Prodac beeg Ousmane Sonko de ñun xam naa ni bu doxoon amoon nañ amoon nañ ci yaakaar. fii ci Bambilor de. Mhm. waroon nañ ñu jox ay yu bëri ñu fay bay di fa def def élevage loolu moom bu réussir laay maam mi loor laay dëkki boobu est-ce que du boobaa sax xanaa téléspectateurs yi rek ñoo may andi wàll kon <laughs> waaye laay dëkki mi ngi noonu am na solo di la jaajëfal bu baax a baax di ñaan rek borom bi yombalal ñëpp ba du ñu egg ci cotisation bi nga xamante ni wax nañ ko léegi ci reportage yi ku nekk borom bi yombalal la nga daal di am kuy boo yóbbu sa kër alors mu mel ni dañuy def une petite pause après revenir pour la dernière